tarbiya la sunu daayira bu nuy jànge la bu nuy jànge tarbiya bu nuy jàngee njub bu nuy jànge bokk ci xadara Cheikh Ahmed Tijani ci ëttu kër Cheikh El Hadji Malick su ko defee tabaarakallahu lii ñëpp a bokk ñun su yóbbu wutaluñu kenn dara dañuy wut rek pour kër gi waaw man loolu nag kon ngeen bàyyi loolu xel euh, moom mii duma ko wutal cër ndax aw ma lu ma ko jox waaye lu mu war a am bu ca waree jël dana jël daaw bi muy dem màkk yàlla xam ne ni yëguma ko ndax ma suñu ma téléphoné ma joxe sama turu doom temps bu ñu ma masee téléphoné man laaj sëñ Mansour mu ne man nañ joxe diw masumaat désigné nit moom rek laa naan et puis euh, loolu de dara dem ci umra xanaa ku am lu baax doo dem ci yooyu umra euh, du cër kàcce xëccuram xaw ma ko sax waaye teewul ko ko bëgg a ñaawal ñaawal na ko wax fekkee waaw tooñ na ma de yëguma tinuma wallahi yëguma tinuma billahi lazi la ilaha illa hu yëguma tinuma ñëw na rek ni ma dañ may woo léegi à la présidence naa indi sama passeport damay àndi ci umra bi ma ne ah te dem naa ba di ko bëgg a tere sax waaye dama xam nitu politicien soo ko tere ñu ne ah waaw moom de def ñoo nangam nangam def noo contre moo tax ma bàyyi ko mu dem waaye dama naroon ni ko sax bul dem dañuy dem moo tax sa démb Ablaye Wade def ci diggante dindi sëriñ sëpp lànk dem dàq sëriñ sëpp nañ ko c'est très bien fu ñu jëm li ñuy wuti ci umra bu ñu bëggee umra nañu dem li ñu topp ci avion président di yëpp yëpp yu wuti doy de naa ñuy xëccoo di buuxante mu dàq foofu ñëpp loolu c'est très Si yàlla may na ko ci nitu yàlla yi lu mu may ñu bari ñun teewe nañ ba tàyyi mu def loo xam ne suñu ko nettali woon mais déedéet démb rek laa koy netti benn taalibeem mu ni ma dama romb zawiya Sidna Alxaaji Malik Si bi si aw ni machu na mun ma timis la mun ma maa ngi yàkkamti waaye jàdd naa fa julli fa fekk rawe nañ ma benn rakk ma jóg mottali ñaari rakk mun ma bi ma génnee nag wax dëgg yàlla maa ngi doon xalaat ci sama xol naan waaw man sama julli gi gaaw na di man sama julli gi ndax sëlmal naa sax waaw ndax man benn ràkk bi biral naa ko ne loolu lay wax ci sama xol ba ñëw Richard ci këram tibis Sëriñ Njóoba laa fekk mu toog ca perang ba ma ne ko doon bëggoon ziar góor gi mu ni ma ah góor gi de dafa maa ragal ni waxtu yi day nekk ci kurusam nee rek siñ siñ bi dal ni kacc ma geesu muy moom ma waa ko jox ko loxo nee mu toog ci siis ci kanam mun ëmmatu ma ko sii mu ne ma xam nga julli ba noppi génn naan biral naa ak ndax sëlmal naa xam nga julli ga baaxul de <laughs> ne ma ne ko jërëjëf si ku mel ne yow laa doon wut fu taalibeem toll bi nga koy surveiller loo def ci diine te du dëgg xam na ko loo def ci njubadi te du yoon xam na ko te bu la jekkoo ngeen wóor dana leen nangam moom moytu ko nangam moom moytu ko loolu lañu soxla li ci des nag amul solo li amul solo malaan bu la guuralul du la fajal sedd malaan mu la tàngalu du la fajal sedd sëriñ bu la mënul teg ci yoon nga jub xoj mais bu la nee dans le yóbbaale ëllëg day day wax lu ko neex rek doo ko gis sax bilaay doo dem ba foofu ni tucc nag doo gis kanga nga doon <laughs> soo defee nag kon kon ngeen di ko xamee noonu di nu laaj nu di leen wax li xew nga defee kon fa tabarakallahu loolu rek la ñu amoon ci seen bés bi waxleen ko dolli leen ngeen takku yem leen ci li ngeen war a yem doxal leen seen tarbiya bokk leen ci tariqa bi dundu leen ci ëttu kër Cheikh Al Hadji Malick ormaat leen ñëpp li ci des nag suñuy waxtaanu bopp la bu nu jógee di ko waxtaanee. xam nañ ko waaw waaw nu ko boo defee kon ngeen xam ni ci loolu la ñu nekk ngeen góorgóorlu ngeen topp directive yi may jox Moustapha mu di leen ko jox waaw directive yi ma koy jox mu di leen ko jox nu ànd dox wuti nag suñu Babacar Si li ci des ñoom ñi ku ci nekkul taalibe daa ko gis waaw ku ci bëgg dund ba diwan da nekk taalibe te maa ngi leen wax am na loo xam taalibe bu ko ci ñeme boo ko defee ren bu déwénee dootoo ko def maa leen ko de parce que kër gi li muy bañ taaliba bu jàmbaar damay def ba mu neex ma damay wax da nga xëy noppi te kenn du la noppi la te loolu am nañ ci ay preuve yu dul jeex yu dul jeex yu dul jeex bu leen nekk mukk jàmbaar ci kër gi toujours ragal leen nun lii ba léegi dañu ragal dañu ragal am na lu dul wax mukk juma seigne babakar nga nel fa lay julle waxtu nek musuma fa ngaan musuma fa ngaan lélé sa nit ni ma waaw do wax ci nangam ci juma jël nga ah, dédé da julle ma fi indi damay julle rek dem musuma fa ngaan musuma fa dar ba mat ñi ñewé ni ma do dootu ñew jakk itam dañu bëgg nga wolen dem ne ah, dede lool kenn du ko woote bayina leen da nga ko faj gi nga lama ko faj waxtu rek morom leen dugg ci jakk ji julli tisbaar takkusaan timis gee suba ñuy dem ba kenn ñemeetul ma romb la dugg te dugg jàkk ji mujj yi fees rek te waxuma kenn dara duma fa jël kàddu duma fa digle duma fa tere damay dem rek julli jël sama dàll bokkaat dem ndax ñemewuma ko du jumaa ju ñuy waxi te pourtant maa ko defar ba mu mel na du trois cent soixante millions laa ci dégg yu dërëmu kenn duggul marba ñuy fees rek te waxuma kenn du ma fa jël kàddu du fa digle du fa tere damay dem rek julli jël sama dàll bokkaat dem ndax ñeme ko du jumaa ju ñuy waxe te pourtant maa ko defar ba mu mel na du tikk 360 millions la ci def yu deureum kenn duggul marbare ko ci xaw ba ci suuf te jume kenn pikini waye ñemewuma fa ngang damay dem julli rek fëgg samay dal dem kenn du fay woni njambar ko woni njambar rek gis ko toujours na ngeen di ragal talibi fay ragal et puis kër gi du këru wax këru jëf la way du këru wax bo ñemee wax rek gaañ lool ñu ko bàyyi xel waxtu wu nekk ngeen di ànd ak seen sago te moytu nit ñi ndax nit ñi dañ lay jëlloo sa bopp won la loo moomul jox la loo moomul yëkkati la ba nga àgg ci kaw niir ya te fekk demoo fen nga defe ni man nga manu nga defe ni man nga manoo loolu yëpp na ngeen ko bàyyi xel ni ñuy ragale ragale leen noonu loolu rek lañu amoon ci lu ñu leen ci doon dollil gannaaw ba ñu leen waxee tarbiya mooy lan tarbiya mooy fexe leen daal alquran di suñ Babacar Si di jàng bu leen teroo seen bos lu mel na bosam de waaye jàng leen de rakkaat ya muy def di ko daboo di ko wute yàlla bu mu leen teraw looluy tarbiya la sa sëriñ di def pour dem ci yàlla loola nga koy roy waaw pour yow tam yéeg da ngay war taalibi dafa war a topp sëriñam ba bu geesu rek gis ko ci gannaaw bu taxawee sa gannaaw yàlla geesu gis ko loolu mooy taalibi ak de amaa jëm nag laxasoog di sonn nag yaru mattak yooyu moom tari tarbiya gën a euh, ñàkk solo waaw sëriñ bi mooy la mu bëgg mooy la muy def nga di ko def ci yàlla waaw bu mu lu ca man xëy sa bos sa bos du yem ak bosam ndax la Seydil Hadji Malick waxoon taalibeem ba rek doo ko fekk ca jàkka ja muy naafile mu di ko roy di ñëw di sëgg ak siggi dem ba ci biir mënatul sëgg mënatul siggi mu daw tëri biir set mu ñëw ni ko góor gi dama la doon toppandoo biig waaye damaa mujj daw Maodo ni ko danga koo man ni ko danga koo man yàlla tas ci bépp gox moroom xanaa boroom yoneen bi yaa fi doon donoom dundu dey sa lépp ko sa mbir dëppoog la wér ci yax yaa mata roy si ku la roy Cheikhu Tijaan Cherif la roy te Cheikhuna waaju ko su nos yoneen bi doo rax ak di ko intuloo ndax ci kii moo dikk doy dañuy digal moom dunu jey te it wutul waaju ko fay moo doon imaam na sedd ya dalay digal dalay digal du la dugal dalay yëgal la lay bëggal digale la ëllëg bugal te day jëfee la yàlla wax te day digal nangam ku wér jullit di wér génneel la na aj kaman di leen sikar sax leen ci lii du leen torox ngeen taqoo amal lu lew comme mu lewul du doon mu lew na ngeen di gor ñu ñëpp naw te bañ di saf boroomi tax ngeen juuleeg du moytu tooñ na xol yi laaf te ngeen di muñ kon nag ma ngoog koo koy seen sëñ ba Maodo si yay ki nu doy ba woo fi nun taxul nu tiit foo nekk doo dañ duni nii doo jóg fi nun subaak marax amoo moroom xanaa boroom yoneen bi yaa fi doon donoom sa dund géey sa mépp koom sa mbir dëppoog léwér ci yax yaa mat roy si ku la roy cheikhu Tidiane Chérif la roy te cheikhuna waaju ko roy sunna si yoneen bi doo ko rax ne na ngeen ku roy xalifa bii ko wut dañoo di doon ku Maodo boot ëllëg ci déeg ba daa ca root siraat da ngay raw melax xàllu sharia moo ko xeñ mbootum xariqa moo ko leñ mbellum xaqiiqa moo ko roñ gaalugu rijaal yi moo ko lax yenem bi man mën naa ko xas nu ko ko yenoon mu dal di yës ñu dul ñoñom tey dañu tas ku daw lefam yu daw bëx daa jóg ni coow aw ca wa gaañe rëy ña jaare woon moo tax ba gaañe fekke woon naan mbay ba tey doxul fi ndax jaaduy ci cheikh ba fees ni del te des ba tey ni tekk dal aw ñay du dox di tëb na fel borom mi mbóot du dox di wax yaa xaw sa naan du nu mar te marumbu weesu na tar te réere woo si la te koo duyal du naan lu nëx jooyu nu si jox nu saween nu nuy sa doom yi ngir semaine moo nuy réyal du moom keneen fi nun meneen dafay forox voilà loolu moo na sos bàyyi si des ak xërëng-xërëng yeeg farfarloo yeeg fii laa kii kaag kaag kaay kii du ma woo benn taalibe di la propagande du ma xëbal benn taalibe taalibe mënu koo am lu ma lay doy na bana ma libre su kontaan sax libre sama bopp dem sama yoon fu la jëlee dama la attan kala attan kay nga ci tiwante kooku moom bu taali bu ñoo xam na nu mu lay def mën naa la ànd ak yow nag ni la ni ko mi ngi nii mën naa ànd ak yow ba ca moom ma ni ko kii de mu ngi nii noo ànd ñëw lii la bëgg wax la bax ko ko dem suma yow moo xam nag moom yéene ne la ko wala yéene wala ko su ko defee kon nag ngeen bàyyi xel seen bopp bu baax ngeen suivre tarbiya boobu suñu tarbiya sell la ak sellal suñu tarbiya jaamu yàlla suñu tarbiya julli la suñu tarbiya werd la suñu tarbiya dem jàkk la suñu tarbiya dem toog ci malaanum wasifa la suñu tarbiya sopp sa mbokkum taaliba la suñu tarbiya mandu ci deru gor yi la suñu tarbiya par bokk ci loolu na ngeen ko xam loolu ñun ci lañu nekk bu julli jotee te ngeen nekk fu am jàkk dem leen julli ca jàkk su ngeen amul ngan su ngeen nekkul fu am jàkk nag bu julli jotee julli leen ah, julli leen julli gu sell nag julli gu sell bu ngeen di jaamu ngeen sellal japp jàpp njàpp mu sell julli julli gu sell japp sa njàpp bu doon benn it mu xam moo da nee na benn julli gu yàlla nangu rek bu ma wóoroon ni am naa ko dootuma julli àjjana nga jëm benn benn julli gu yàlla nangu rek suma ma ni ne am naa ko dootuma julli moo tax fu ngeen toll dee leen sellal seen jaam jaar mu gu sell jàpp seen jaam bu ngeen dee werd ngeen werd toog li werd bi laaj nga toog jublu penk jàng sa téeméeri sa vaar jàng gu dal sa téeméer ndax da ngay tëbb da ngay tëbb ba dee werd yaa ngi tëbb ci ruuxu Cheikh Ahmed Tijani moo tax da ngay toog teewlu ko teewlu lu wi soo ko mënul teewlu nga teewlu jëmm si naan Xaaji Maalik Si soo ko mënul teewlu nga teewlu jëmm si Babacar Si soo ko mënul teewlu nga teewlu ki la may wet téeméeri si fa téeméer saa lu gën àdduna ak yi si biir xarit salaat fàtte dina bëgg dem àjjana te ku ko def def aljana loolu la ñu ko Cheikh joxe xamoo sowe jaam yi pour yóbbu leen aljana dafa bëgg ëllëg ci kanamu yàlla contribution ëpp bu wëli yi yëpp mu ne ñii maa fexe bañ dugg aljana nga jàng sa sawaat jàng sa jawharatul kamal jawharatul kamal na foo ko jàng juróom-ñaari per ruuxu yonent bi teew moo tax ñu di nga di ko jàng ci oto ki saxaara ki avion nga toog jàngu ko ruuxu yonente bi teew nga tëbb nga tëbb say tilim tilim di dañ say baax baax di yokk sa xol di gën di sell ngay gën di bëgg di lu baax ba ngay dem aljan loolu nag jëriñ mais bu leen defee caaxaan laa ki par parlo ki ay ndënd ki ay pàkkat soo jógee boo amee sa liggéey nga dem liggéey loo ci am nga lekk yàgg si njaboot laaju leen addiya laaju ñu leen dërëm cotisé wuñ leen wuñ leen poño wuñ leen leen laaju ñu leen li ngeen amul bu ngeen amul ñëw leen li nu am nu jox leen ngeen booleeg li ngeen am te doxalal seex li mu bëgg doxalal suñu baaw ko fekk dama ñëw nuyu Cerno Muntaga radiyallahu anhu jox ko addiya ma ñëw nuyooti ko jox ko addiya ma ñëw nuyooti ko jox ko addiya mu ree waaye yow man nga man nga foo ma nuye rek jox ma dara ma ree ma ne ko cerno ma jàng la wax wolof nee nañ sa sëriñ ak sa goro ak buur doo leen nuyoo loxoy neen mu leen nuye rek jox leen jox leen dara sa sëriñ waaye la Seydi Hadj Maay waxoon taalibeem ba dafa ñëw mu ni ko de sa ngoro ko fu mu toll ak ah, si tolluwul kan ndax lañ ma laaj la amul mu ni ko ñaata lan la laajal mu wax ko ko mu dugg ci biir génn jox ko ko ni ko demal jox leen ko ndax ñu may la ko waaw ah, lu fay aada ah boo demee de da nga rey nag joxe saaku ceeb invité dëkk ba attaaya mu ngi koy boo demee ci bët ant sàmm nan la jox nag ak saako ceeb dindi beneen xaalis ni ko nga jënd ci war ga attayaar waa dëkk ba ba mu demee ba ñëw saabal ko noo ngan nga neexee ci tiggaat yooyu Maodo ni ko waaw moom boo fay dem dangay ngay doxam nooy def da dugg saxaar mu ni ko da ngay dugg saxaar ba Kébémer nga wàcc dox mu ko kon benn fasu naaru góor a ngi ci gannaaw gi néeg bi soo jógee nga jël ko ndax boo fay demati doo dox mu ni ko góor gi mbaa du li nga ma nar a defal ëllëg nga ma bëgg a jox ci àdduna ba bu ëllëgee du ñu jote dara mu ne ko déedéet tariqa bi nangu na ko nangu na sëriñ man yóbbaale taalibe nangu na taalibe man yóbbaale sëriñ gis ngeen loolu la ñu xam waaw ñu xamuñu ratt sa taalibe xam ñu teg ko loo manu xam ñu leb ko daw loolu mooy jaru tariqa bi jaru tariqa bi loolu la defar sa jikko nag defar sa jikko sa mbokku taalibe yi nga bëgg leen muñal leen ku la ci tooñ nga jéggal ko ku la ci laaj loo am nga jox ko li si am nga yéene ko ko loo ko mën a dimbalee nga dimbalee ko ko bu nekkul ci njub nga woo ko yedd ko yaa ngi moom ak yàlla te doo ko tiitaroo tarbiya la yoon wu sell la yoonu yonent bi la Cheikh Ahmad Tidiane doon ko ci moom ñu ko doonante ba ci Sidna Alxaaji Maalik di ko doonte ba suñu kilifa yu baax yi ñu mujjee dajeel ñu ñëw dugg ci woowu kenn ni la kaay bokk tariqa Cheikh yaay toog ba mu neex la nga ñëw ni may ma wedd ku dee ca marché bi rek yaa tàggee sa bopp soo ci xasee dugg nag la discipline ba laaj danga koy def wala nga gaañu soo ko defu rek gaañu te bu boobaa yaay gaañ sa bopp su ko defee kon ngeen góorgóorlu te seen daayira bi bu leen faale nit ñi ak li ñuy wax ak seeni pexe mënu luñ leen tus kenn mënu koo tas kenn mënu koo yàq noo leen ci ànd ak yéen di leen protéger ku leen laal nu laal ko ku leen duut baaraam nu duut ko baaraam li ngeen war a mel yëpp danañ leen ko wax noonu rek la ñu àndandoo liggéey lillaahi tax ànd ngir yàlla te démagogie duñu ci fekk duñu def démagogie abadan mënuñu ko duñu yàkkamti ndam ndax wax naa ni ñi fi am échec yëpp yàkkamti ndama leen ko indi maa fi def lii maa fi def a ah, looy def yow loo demoon ba defit du yow bu loo demoon ba def ko mu ni jëngit du yow dañ laa jàppale koo fa gis mu am échec yàkkamti ndam moo ko ko teg xale yi na am itte jéem leen te bu leen tay li jamono laaj def leen ko summiku leen liggéey leen wuteen lu ngeen am bu leen def lu jubadi bu leen jël alalu jàmbur bu leen jël àqu kenn mais liggéey leen jariñu leen loolu la fi seeni sëriñ bàyyi dañ daan liggéey di jariñu di dugg diggéen loolu yëpp ngeen bàyyi ko xel di tëralin di jéem a avancé di seet li jamono laaj wala ko de mar mar mbay mii ngeen doon wax dër gi dem rek laay wax ak moom mu di woon benn statut pour la fédération des aveugles du Sénégal des aveugles des tijanes du Sénégal man ko d'accord demal déposer ko jamono ko laaj léegi ma ne ko demal nga déposé ko buñ ko reconnaître ngeen man ci dëgg di am ay ndimbal di am ay def ay opération li jamono laaj dee ko def li ci des nag jubadi rek la jubadi moom amul njariñ fenn li jubadi neex neex bu bésuñ jubadi jotee nga siib jubadi waaw danga nga daj loo xam ne danga xamoon ni njubadi jaru ko te ñi ngeen am nii lañu ñu mel nii la ñu mel tegu ci yoon nga defee yi des nag waxi caaxaan rek la ñun duñ leen wax ay xuraafaat ay légende légende moom fële lañ ko teg lu ànd ak légende Abdou Aziz bokk ci man légende waxuma ca dara dara ay xuraafaat ay may dara parce que li gën a bon mooy fen ci diine fen ci diine boo fenee ci diine il faut yàlla toroxal la ndax dafa garaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko ni afa yakunu lmuminu jabaanan qaala naam afa yakunu baxiilan qaala naam afa yakunu kadaban qaala laa ndax jullit dana nay mu ne waaw du tee mu nekk jullit ndax jullit dana nekk patron mu ne waaw du tee mu nekk jullit ñu ne ko ndax jullit dana fen mu ne déedéet du fen boo xasee fen rek dootul jullit yow nga bëgg a di ko doxal ci fen fooy ba ba réussir doo réussir doo réussir su ma defee kon fexe leen ba lu ngeen di wax dana nekk dëgg bu leen fen mukk ngir bëgg lu neex li ngeen bokk bu leen fen ci tariqa bi bu leen feneel seen sëriñ sama sëriñ daf doon naaw ci jaww jeeg sama sëriñ suñu baawakar yooyu ñun bokk ci suñuy mbir de waaw. voilà. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.